mbokk jullit yi ginnaaw buñ sante yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu nuyoob jullit ak mbokkum jullitam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen nuyu ci turu Serigne Bassirou Mbacké mi ñu xalifab sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ Modou Mahmoud moom Mamor Jaara mu leen am mbégte di leen nuyoole ak mbokkam yu baax yi mu àndal ñëw teew ci bis bii nga xam ne mooy bisub yonent bi alayhi salaatu wasalaam te waa dëkk bii di Touba Fall Mbuxeex ci njiital Serigne Modou Mahmoud Fall ñu gën koo xamee ci alaaji Ndaama Fall di coloré gu yàgg goo xam ne dafa doxoon ci way juram ak sëriñ moodu Mahmoud ba tax lii lépp am Serigne Basiru nee na mi ngi am mbégtey ci lii nga xam ne moom la waa dëkk bi def ngir yàlla akuk mbokk ak kóllëre gu yàgg. waaw yëg-yëg bi de moom weesuwul sant rek ak fas yéene sos ca la mag ña sosoon mag ña sosoon muy wëllëre akuk mbokkoo akuk safoo ba tax na yëg-yëg biñ ci am kenn mënu laa wax nu mu toll ndax lu toll nii buñ ko yëkkatee jagleel la ko. te dara waralu ko lu dul ak mbokk ak ak ak ak pas-pas ak ak taalibe loola kon mënuñu lu dul mu rëy lool ci ñun suñ kilifa yëpp itam rëy na lool ci ñoom yàlla xam na ne bu doon baneen bis bu dul bis bi mbooloo mu baree baree bari dana fi teew ci ay kilifa waaye ku ne xam ne ne bis bii ku nekk bërëb ba nga nekk da ko fay woote boo dee boo kilifa bërëb ba nga nekk da nga ko fay woote loolu rek a waral mbooloo mi toll nii waaye Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif moom moo waroon a jiite délégation bii waaye ku ne xam na ne mooy loxol mun taxa mooy loxol Serigne Mountakha ci biir ak moo tax mu yabal doomam di Serigne Mamor waaye daal na ne wóor na njabootu Mamor jaare gépp fii lañ waroon a teew si ñoom ñëpp itam seen yitte ak seen yéene moo doonoon teew fii waaye xat-xati bis bi ak ak jamono ji ni mu xate moo waral lii rek amma baadu fa fi nazmina مسالك الجنان في خدمة المطهر الجنان هذه الأبيات من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أقديمه بما اصطفى من ظنني خير القديم المصطفى فإنني أقديمه بما اصطفى أقديمه إلى دخول الجنة daarul xaraari wal muna wal minna man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada muy guddi laylatul mawlidi nabi ngir màggal fi bisug seydina muhammad sallallahu alayhi wa yàlla defit sunu borom ci baaxam ak yërmandeem baaxe alaaji Ndama Fall xel mu rafet mu dem ci sëñ Abdul Baaxe Mbakke sàkku ci moom ab imaam boo xam ni day ñëw di taxawee dëkk bi bi ko waxee sëñ bi sëñ bi tànn doomam bu ñuy wax sëriñ Xaadim Mbakke ñu janoog moom nii moom mi nga xam ni waajuram da ko jëloon teg ko ci loxo sëriñ Saalihu Mbakke nga xam ne moom xamul kenn ku dul sëriñ Saalihu maanaam sëñ Saliou moo ko yar moo ko tarbiya moo ko tarxis tarqiya moo ko tasfiya lu nu mel rek sëñ Saliou ko melal noonee yu war a jànge téere yi mu war a jàng yëpp ñu maas rek déglu sëriñ bi mu am kàddu yu yu mu ci barkeeloo bisimilahi mbàkke auzubillahi min asheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما bokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi nu sante yàlla julli ci ngeen ji bindéef sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jëmale ci bokki jullit yi nga xam ne yëpp ñu ngi nuy dégg wala ñu di ñu gis te di jiital ci kàddu yi nag kàddu yi ndokkeel mbooleem xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waajtaay wi nga xam ne moom lañ xëyee ci suba ba léegi fukki waxtu di jot jëm fukki waxtu benn di ko waajal guddi gi nga xam ne mooy yi mawlidi xayril bashar te ñu tàmbalee woon ko ci li nga xam ne moom mooy ngën ji wax te mooy kalaamullaahi alquranul karim yàlla def na ñu xëyoon doon ca jéem suñ kem kattan ba yàlla def na wàcce nañ ci ab lim toftal ca it xasiida lan man xasiida du taysiir moom it toftal nañ ko ca gannaaw ba ñu jàng xatmu bi loolu lépp di liggéey boo xam ne dañ koy waajale rek guddi gi nga xam ne moom lañ dëgmal te di liggéey boo xam ne sunu jur wi nga xam ne moom la ñuy fekk si fii di alaaji ndaama bàyyi alaaji ndaama nekkoon mu nekkoon lu mu yitteeloon lool lu ko yitteeloon lool nga xam ne ba muy man daan mën a dox da daan ñëw taxawal boppam bu ñuy jàng xatmu bi mu tàmbulee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam ya tàmbulee it ci mag ñi ak wayjur yi ku ne rek mu wax daal liggéey bu la ci fasal ak yéene jum la ci ëmbal te lépp jublu ci woon lenn rek lu may bay waaram rek ci tool bi muy toolu lislaam kon dañuy sant yàlla bu baax rek bi nga xamee ne yàlla ngi ñuy gën a dimbale gine lu ñu gën a looli tawfiix bañ man di ko taxawee euh, donte sax nan ko war a taxawee mënewuñ ko ni waaye nit ñu ngi jéem suñ kem kàttan dañuy ñaan rek yàlla nangul nu mbooleem liñ ciy def lépp te jotalul na ko ca kilifa ya te kilifa yi mu tàmbulee ci rek ki nga xam ne mooy borom guddi gii te mooy ngeen jëmmi def sallallahu alayhi wa sallam jotaloon ko ci saxaabaam ya ak mag ñi nga xam ne ñoo tax ñu jot ci lislaam xam naa dañuy sant rek bokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal jóge tuubaa muy Serigne Abdou Latif mii di doomu Serigne Modou Fati xeer yi nga xam ne ay ati at a ngi nii ñoo fi ànd di ñëw di fi bokk di nekk di di dundal di taxawee bis bi te loolu di warte foo xam ne rek lañ ciy jéem ndax ci lañ fekkoon suñuy wayjur sunuy maamit ci liñ ñu nettali ci leen sunuy wajur fekkoon kon dañuy jéem rek suñ kem kattan ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Asgay mi ak sëriñ Pape Diop Demba mi yoroon oto bi ak sëriñ Abdul Xaadir ja di leen nuyu yéen mbokk yi fi fekk yëpp. ñu toog ak euh, sëriñ Abdou Latif Mbakke moom sëriñ Mourou Fati Xari moom sëriñ Massamba fii ci Touba Fall. Ah, mu am kàddu yoo xam ne moom it da ko ci bëgg a barkeeloo kon Mbàkke bisimilah. di nag moom xam naa du mën a gudd ndax liñ ci war a wax lépp sunu mbokk sunu xarit wax na kàddu yëpp muy sëriñ Xaadim Mbàkke waaye nag ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di jaajëfal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mi ñu indi fii tey ñu bokk ci ñiy taxawee bis bi dëkk bii nag. day dëkk boo xam ne day dëkkub Seex ma Masàmba di Touba njabootu Seex ma Masàmba nekk fi ñun ñii ñu ñëw fii tamit teewal fi xalifab Seex ma Masàmba ci bis bi di gudd di bisub gàmm gi ñu ko sëriñ bi waxee rek buñ ñëwee ba léegi lépp lu ñu waajale bis bi ci alxuraan ca lañ nekkoon ak xasida ak listixfaar yëpp ñoo ngi ci woon fas yéene ko waajale guddi gi te fas yéene tamit yàlla may ñu tawféex bañ defee ko niñ ko bëggee euh, mu ji nga xamante ne nag moo ñu indi fii muy Baye Ndama Fall ak njabootam ñoom ñëpp tamit wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lool ñoo ngi leen di ñaanal lépp loo xamante ne seen maam ya ak seen waajur wi maanaam bëgg na ko ci dëkk bi di ko taxawe yàlla na leen ci yàlla jàppale bañ bañ bañ yeggale ko jàmm ba def seen naali bopp ñoo ngi sant mboolem ñeen àndal ñëpp. muy jëmm ju baax ji muy sëñ Lamine Mbaye ñu janoog moom euh, muy nit ku baax di nit ku sel nit ku bëgg lu baax nekk fële ci Amérique njabatu Seexul Xadim di ko fa fekk mu di leen dalal waaye ma ma jëlee kàddu ci sëñ Xadim Mbakke moom sëñ Abdou Baaxe mu wax ni nit la ku laabir ku yaatu ku nangoo sonn ci njabootu Serigne Touba gi ah loolu nag ku ko def rek wàcc nga ah, sa diggante ak Sëriñ Tuubaa moom wàcc nga kon sëñ Lamine ñu jox la kàddu gi rek nga barkeelu si bisimilah. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah waa ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëñ ñu ngi lay sant bu baax lii de dañuy am mbégte kontaan bu baax xam ni fii suñu maam ñoom ñoo fi dalaloon ñoomu maam alsaan ñoo leen fi dalaloon kon fii daanaka dañ fay dëkk moo tax ñoom paam ndaama li ñuy def ak ñoom li ñuy dan li ñuy def ñoom loolu suñu mbégte la loolu moom moo tax ñu war a jël ay royukaay bu baax ci ñoom lu mat ñeenti at ci ginnaaw loolu moom mooy wane ni léegi ñeenti at ci ginnaaw bi ma kii yéegi dama ni paam ndaama man daggal ma sama kër mu daggal ma ci wetu kër dan fi mu nekk man miire naa ba clôturer loolu moom moo tax ñuy war képp koo xam ci dëkk fi nga dëkk sa dëkk kenn amul foo xam ci dëkk bi nga dëkk ku ci nekk danga nga koo war a jàppale jërëjëf ñu ngi leen di ziar di kontaan bu baax rek di lancer appel tamit képp ku nekk bitim réew ndax lii daan def yi ak ñoom Modou defaluñ ko kenn ñëpp nañ ko defaral loolu moom moo tax ñun tamit ci côté bi ñu nekk tamit dañoo war a laxasaayu taxaw ñoom tamit di ànd ak ñoom ci liggéey bi ndax liggéey bi ndax liggéey du ma demba liggéeyu ma sàmba suñuy maam ñoom ñoo liggéeyoon ba ñoom ñoom ñu ñëw ñoom moo tax nag ku ci nekk ci domaine bi nga nekkee domaine bi ci nekkee daanaka jàpp ci loolu bu dee comme euh, domaine éducation bi daara ji ñun tamit ñu jàppale li ñu ci war a mën a jàppale bu dee di domaine santé bi tamit ñu def loolu bu dee domaine infrastructure yeeg tali ak accueil ku nekk sa kemtulaay kàttan rek nga def li nga mën